rëy rëy lu ko yàlla fonk-fonk ba ne lépp lu doomu aadama def rek moo ko moom ba mu des koor koor man maa koy fayal sama bopp naka noonu koor li ko tax a jóg baatu koor mooy jàpp gannaaw boo jàppoo ci lekk gannaaw boo jàppoo ci naan gannaaw boo jàppoo ci sa pëy mooy doo lekk doo naan doo séeg sa jabar bu jigéen doo lekk doo laan doo naan doo dajeeg sa borom kër loolu mooy jàpp bu njëkk ba ñetti jàpp rek moo am ci koor koor bon fan lay commencé mooy ci fajaru ñaareel ga fajar ñaar la boo demoon tey ci ñu dëkk ci comme ñun suñ dëkk ci àll ba léeg nga gis ñu xëdd heure boo xam ne ca fajaru ñaareel ga la fajaru ñaareel googu nag fajar gu njëkk ga digle wuñ ko fajaru ñaareel ga lañ dëgg digle nga xam ne ci ngay xàmmee wëñ gu ñuul ga ca wëñ gu weex ak wëñ gu xonq xayitul abyad min al xayitul aswad wëñ gu ñuul ga ca weñ gu weex ga commencement bi ba alquran aaya boo wàccee bees saaba yi dañ daan jël ñaari wëñ weex ak bu ñuul di ko def seen rol nga ganaay fii ñu génn di ko mën a xool rek ñu ne bon ñun mën naa lekk waaye xaytu boobu mooy bu fajar gee xar boo génnee boo xoolee ci asamaan si rek da ngay jël rëdd yu ñuul ak rëdd yu weex rëdd yu ñuulee yu weex yi bu commencé génn rek fajaru ñaareel gi nga foo ngay jàppoo dooto lekk dootoo naan ila xurubi shams ba jant bi so sa jant nag moo gën a neex xam ci fajar jant bu so moom kenn du ko laaj jarul xool monto jarul xool dara digg boobu lu fa dugg ci sa biir muy lekk wala muy naan rek ta nga tay ko kooku foo kafa kafaara kooku mooy indi kafaara te du kafaara nag du tare bés bi nga xam ne ci nga defoon loolu danga ko fay ba pare ba salaan bu ko tayee woon tey lekk wala nga tey naan bés ba nga continue woor ko fi nga ko ni ko dootoo lekk dootoo naan waaye bés boobu dagg na te terewut da nga fay ku repp nag ba dajee ceeg sa soxna sëy ci biir koor kooku nag moom mooy indi woon ñaari weer yu tegaloo wala leyal juróom benn miskin hmm? wala goreel jaam loolu nag defe naa nit war na ca mën a yegg ñu ne booloo jigéen ci weeru koor fan la yem bu fekkee ne yonent bi nee na ci weeru koor dagan na léeg-léeg ngay kiyante sa jabar noonu bu fekke waaye nag daan na ko wax ba ne man nag bokkuma ak ndax yàllaa ma mën a yàllaa ma téyel boppam ndax moom ci weeru koor wi da daan jonjoon teg ay soxnaam maanaam laalanteeg yooyu yëpp ba mu des bële ndax boobu lañ euh, ba njëkk boobu laalanteeg sa jabar bi maanaam fóonante ma wax baat bi noonu la ko sariya waxee fóonante koo xam ne am na ñoo xam ne mën nañ koo def te dara du génn ci ñoom waxtu woo wooree daan def loo xam ne ci wàllu góor ak jigéen gis nga sa kanam am lu fa génnee rek xamal ne sa koor dagg kon ñu ne nag bu demee bay ca dugg léegi par exemple am nga sa jabar xëy na fàtte nga ko te heure bu jotugul nga dem bay booloo moom nan la ñu xamee ne ba jimaa bi am na ñu ne ngóor góor gi lim yore muy kuul la ñu ne bopp kuul yu dugg na ci euh, ndax yàlla ni mu bindee euh, bagage yu góor daf ko defal mandarga mandarga mu njëkk moomu daan bu duggee ci bopp buy rek bu boobaa moom kenn waxatul na dagg naam dagul jàpp bu njëkk baa ngoog jàpp ci lekk jàpp ci naan jàpp ci sëy jàpp ñaareel ba mooy nga jàpp sa euh, yi dañ koo bëggoon lool ku amul jabar di fooyee sa bopp ba tey senegal Afrique gii bëri na fi trop góor guy toog rek di fooye boppam di fooye boppam ba man yu wàcc bu boobaa nag bu defee moom naa lañ ko tuddee naa moom ku ko def moom xamal ne moom yaa tey waxuma dagg waaye moo nga jël jigéen tëdd ak moom sorowuñ waaye boo fekkee def nga istimna te dara génnut am nga bàkkaar ba waaye taxul nga dagg e, beneen e, imsaak bi maa ngi ci imsaak beneen imsaak bi mooy nga fexe ba doo wëccu wëccu wëccu lu nag danay am di looju di looju boo eh, istimna mooy ngay ngëpp sa kanam di fooye ba man yu génn waxaatuñu waxam kooku borom a koy tay ñaare lu bokk na ci xale yu góor yaa ngi koy def waaye balañ lañ koy réccu rek bés bu ñu demee ba am soxna duñ fa fekk dara daanaka ndax boo ko commencé def tey bu ëllëg bés bu ne nga defal ko istixna istixsa is tiqya mooy looju di looju di looju boocu boo ko defee xam nga daan weeru koor daan imaamu saafi moom nii la ko tuddee woon nee na ñaar rek la du xoolu daaxil ak xurooju xaarij du xoolu daaxil mooy lu dugg ba ca biir <laughs> bu buy góor gañ bu duggee ba ca biir yàqu na waaye tamit buy ndoxit bu duggee ba ci biir yàqu waaye buy lekkit bu duggee ba ci biir yàqu kon du koolu daaxel la ak xorooju xaarij xorooju xaarij mooy nga wëccu ah? te tay ko dafa yàqu xorooju xaarij ba tey mooy góor gi fexe ba ndoxam génn xorooju xaarij la kon yooyu mooy jàpp ñetti jàpp nga beneen jàpp ba mooy nga jàpp sa bët di ci xool li nga war a xool ndax yonent bi nee na xool googu ngay xool an nasra ñu ne mu ne ko sahmun min sihaami iblis fett la goo xam ne fettu iblis la fettu iblis boo xam ne bii mu ne bu xasee départ kenn mënul ko téye xoolin te gars yi dañuy wax waaye néew na nga xool la nga xool rafet nga delloo si bëti da ngay koy delluwaat rek kon bul xool lu haram ci weeru koor na nga jàpp na nga jàppoon ci lekk jàppoo ci naan na nga ko jàppoo ci bañ a xool lu haram na nga ko jàppoo ci deri doomu aadama yi aji fen ak aji rambaaj ak aji jëw laysa lahu min sawmihi ila joo yonent bi moo ko wax kooku amul ci kooram lu dul xiif xoor naa waaye du tere yaa ngi jow ku la neex yaa ngi jaxase ku la neex yaa ngi ràmbaaj ku la neex yaa ngi fenal ku la neex laysa lahu min sawmi ila jo yow rek nga ca jële kon bon nag ngi jàpp ci bët jàpp sa làmmiñ jàpp sa tànk jàpp sa sa xel mi bu bu aarifin billaahi nag mooy xooru xusoos yi xusoos xooru xaas mooy nga téye sa làmmiñ doo fexe doo lekk dara doo naan dara doo booloo sa jabar ba bés bi jeex waaye yeneen yi ci des yow ngi koy def <laughs> kooku mooy man mi keneen ki moom ëpp garaat ko moom dana góorgóorlu ba day téye cëram téye làmmiñam du lekk du naan xaatiram sax dana ci jéem a téye dara par exemple ah, bu njëkk ba ma wax borom du tere jigéen di rafet di ko romb mu xool mooy man booba bu njëkk bi tara léeg-léeg gars yi wax ay kàddu mu sànni ci moom daal xiif ak lekk daan bàyyi lekk bàyyi naan daan ak bàyyi seer rek boobu mooy bu njëkk ba bu ñaareel ba nag da ngay gën a góorgóorlu mu gën bu ñetteel ba nag lu dul yàlla rek xoor nga ci moom eh, moo tax baatu koor eh, eh, yonentu yàlla Sakariya ba muy ñaan yàlla doom dafa dundu téeméeraat ak ñaar fukk amuñ doom jabaram am juróom-ñeent fukk amuñ doom mu ñaan rabbi laa tazar rabbi habli zurriyatan rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samiu du'a mais ma doom ju baax foofu yàlla nangul ko ne ko dañ la may doom mu ne ko nu ma koy xamee mu ne ko ñetti fan da ko am yoo xam ne doo mën a wax ak kenn ñetti fan yooyu ñëw rek boo ñëwee di wax Sakariya mu ngi dégg li nga waaye du la mën a tontu mu ne inni nasartu li rahmaani sawman dama yéene sama borom bi ñu wax rahmaan koor koor mooy noppi kon nu koor bon noppi ci lekk noppi ci eh, naan noppi ci sëy noppi ci dere jàmbur yi noppi ci xoolin noppi ci waxin man saama walam yarfus walam yafsux xaraja min zunubi ka yoomi wala dadu umru ku wóor waxee waxe caacaaya waxoo waxe fen jowo rambaajoo génn nga ci sa bàkkaar <clears throat> ni keroog ba nga xamee ne eh, maanaa bi ngay juddoo ci sa ndey bi ngay juddoo ci sa ndey da ngaa set kon koor nañ ci jàngale yi na hikma ba dëgg nag mooy ngay yëg ñi xoor doon li ñuy ñi nga xam ne amuñ li ñuy daj boo wooree am ay saako ceeb waa jooju moom dana am ñetti fan du am lekk nga toog yow caako ceeb yaa ngi fi soxna yaa ngi fi lépp a ngi fi te amuloo droit lekk ci nga ne bon waa ji xiif ndeke lii lay daj bon nag weer la boo xam ne dañ ci war di joxante te ku woor te yow mi woor liñ gën a soxla ci yow gannaaw koor gi mooy nga fexe am geneen ko woor ci keneen ku la ko wooral mais maanaam nit ko woor nga daggal ko nga am yoolam booleeg sa yool bi nga am ragal yàlla nga am ci jàngee ci muñ nga jàngee ci dimbalante ci tabe nga jàngee ci màndu ci làmmeñ ak ci bët ak ci xooli ak ci waxin defe naa loolu daal ci tënk mooy koor ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm xale yi nga xam ne ñoo nekk ci Dakar net di leen ñaan yàlla may leen tawfiq ak taysir may leen dimbal ci biir ak ci biti lu ci jub rek ci yàlla la lu ci dëng kii doon wax moo amul benn xam-xam seen mbokk seen xarit al imam Mouhammad Jimlo wasalaamualeykum wa rahmatullah